alaykum mbok sénégalais yi nek fi ci Italie ak yéen ñu ñuy déglu ci àddina bi yépp di leen fàttali rek ne yéen a ngi ci rajo defaral suñu bopp muy rajo bi nga xam ne wax dëgg yàlla mooy jox information ak orientation doomu sénégalais yi nga xam ne ñu ngi nekk ci bitim réew kon nag mbokk yi di leen fàttali rek toujours. ne mën ngeen télécharger rajo bi si play store su ngeen tàppee suma tur Baye Diouf rek eh, da ngeen ko gis kon nag tey mbokk yi dañoo dellu si woon ci programme vie politique italienne maanaam mbirum politique ci biir réew Italie te wax dëgg yàlla ñu def ci ay numéro yu depuis le 8 août tey nag dafa mel ni wax dëgg yàlla lamb jañ ko tuddee woon làmb jo taj tas euh, tasoon na waaye nag beneen làmb euh, taxawaat na maanaam beneen arène daal taxawaat na ak ay écurie yu bees tax lii mooy vie politique italienne ñu koy inspiré ñu ko doon commenté di ci inspiré aussi lay xew ci suñu réew dëgg yàlla lii lu war am la te xam naa ne dinaa ci dellusi waat pour wax liggéey bii ñu def ci depuis le 8 août ma dëgg yàlla ni ko nit ñi accueillir da nga xam ne lu bees la kon nag mbokk yi li ñuy wax làmb ji taxawaat na làmb ju bees te ñu ngi ko tuddee Conté Bis euh, di wax rek ne démb defoon nañ ci euh, euh, waxtaan di wax Matteo Salvini tojal na euh, tojal na bu baax a baax ndaxte làmb ci bees gi bokk bu amul sax licence pour bokk ci làmb ju bees ji di wax ne wax dëgg yàlla làmb ji taxaw na tey euh, ki di roi des arènes muy le président du conseil muy premier ministre ñu koy wax Conte dañ tuddee ko léegi Conte bi dama defoon ci élément présenté ko wax kuy Giuseppe Conte. Euh, tey dem ba président la euh, la république Sergio Mattarella euh, jox won won ñim gouvernement bi ba président la république arbitre bu pour confirmer pour président du conseil ba jógee ci ay écurie wan na leneen euh, ba président d'accord na ci ba moom tey bi mu génnee ci bureau président lim na ñi nga xam ne ñoo formé gouvernement Italie xanaa di wax rek comme niñ ko waxee écurie yi ñett la presque ñetti écurie daal ñoo formé tey lamb ju bees yi muy gouvernement bu bees bi écurie bi ci euh, euh, mag mooy ñi ñuy wax mouvement cinq étoiles Euh, te ki ñuy wax euh, Dimayo euh, jiite ko beneen écurie bi nga xam ne moom moo dugg bees bi nga xam ne làmb ji mbër mi ñuy wax Matteo Salvini génne nañ ko écurie bi génn bees bi dugg bees mooy parti démocratique ñu koy waxee OFI-PD te kii tudd Nicolas Zingaretti jiite ko ñooñu ñooy ñaari écurie yu mag yi waaye nag fexe nañ ba xëcc beneen écurie bu ndaw te wax dëgg yàlla euh, mu tudd léewu léewu benn parti boo xam ne mu ngi juddoo woon ci parti démocratique ay ñu meroon euh, nekkoon euh, parti démocratique ñoo fa nekkoon ñoo génnoon taxawal seen parti tuddee ko léewu ci italien muy liberi e uguali

Euh, mouvement cinq étoiles Mom, ñu ko jox mu ngi yore ministre du travail et du développement économique ñu koy sviluppo économico waye léegi ñu ngi ko yog yóbbu muy ministre bu mag ñu ngi ko jox mbirum bitim rew manam ministre des affaires étrangères mom la yore euh keneen ki nga xam ne euh, moo best euh di fàttali rek ne ci 21 ministres waaw euh, mouvement 5 étoiles amnañ 10 leen jox euh, parti démocratique ñu jox ko 9 ñu jox ko euh, muy 20 ministres ñu ci administration Euh, euh, moom moom lañ jël jox ko ministre de l'intérieur maanaam moom lañ jël euh, jox ko place yi Matteo Salvini mu tudd Luciana wax dëgg yàlla nekkoon préfet nekkoon na fi préfet de Milan nekkoon na fi directeur cabinet ministre intérieur ci tàngi Alfano ministre bi ñu doon wax Alfano dëgg yàlla mu nekk nit koo xam ne ku xam mbirum fonctionnement administration territoriale et publique ak mbirum sécurité publique mom lañ jël euh, jox ko ministère de l'intérieur xamna dina dinaa wat ci mom pour wax lutax ñu tann ko mu jël place ci Matteo Salvini loolu dina ci wat di wax na nak ministère yi nga xam ñoo gëna a am doole muy ministre de l'économie manam du euh, du trésor kooku ñu ko jox ben membre parti démocratique mu tudd Gualtieri euh, euh, député du parlement européen euh, ñuy moom lañ tànn jox ministre de l'économie ministre bu am sens tax ñu jox ko gouvernement contrairement à Matteo Salvini doon bañ dañ pour seen bokkuwaay ci union européenne parce que soo jëlee député bu nekkoon parlement européen nga nommé ministre de l'économie wax dëgg yàlla loolu day wane rek ne Italie euh, yoon wi mu jëloon pour euh, jokkalante di xeex ak waa union européenne léegi bàyyi na ko dafa dellu pour gën a jege union européenne wax dëgg yàlla muy gaat nga bu rafet nag muy liggéey bu rafet ndaxte union européenne jiite eh, boole ay Europe dëgg yàlla eh, bokk bi dafa baax eh, depuis biñ guerre mondiale bi le européen taxawal mbootaay boobu ne nañ affaire nationalisme yooyu bokk ko loolu nag doxal Europe presque depuis 50 ans 60 ans kooku donc Monek Tay, ministre du trésor à parti démocratique nous lañ jox ministre bi la défense euh, waaw ministre yi nga euh, justice ña ko mouvement 5 étoiles ko donc ministres 10 euh, ministres yu ci cinq étoiles euh, euh, neuf ministres yu jógee ci parti démocratique muy 19 benn ministre jógee ci parti bu ndaw bu ñuy wax Léwu te ñoom it ñëw ànd ci ki ñuy wax Espérance am euh, benn jeune la bu ko jiite ci parti boobu moom ñu ngi ko jox ministre de la santé kon nag beneen nit ki nga xam ne moo ci dugg mooy ndaw si ma wax tudd Luciana nekkoon préfet léegi mo nek ministre de l'Intérieur ndax té mom kenn xamé politique kon nak muy 21 euh ministre di wax ci ministres ñaar yépp jigéen lañ loolu mooy li nga xam ne gouvernement bi taxaw te ci suba incha dinañ dellu président de la république ñoom ñëpp ñuy juré li ñu wax juramento ci italien ñëpp ñu ñu waat ne euh, euh, charge bi leen jox dinañ ko doxalee ni ko constitution bi bëggee loolu wax dëgg yàlla lu rafet la xanaa rek di dellu si ci euh, ndaw si ñu nommé nommé ko ministre d' intérieur moom comme ni ma leen ko waxee politiqueul bokkul ci benn parti li tax ñu tànn ko moo di ne préfet la ku xam administration la ku am compétence la xanaa rek ñuy yaakaar ne comme jigéen la euh, yërmande dina ko am ci nit ñi ak surtout nag ci immigré yi loolu lañuy ñuy ñaan euh, xam naa li tax ñu tànn ko mbokk yi moo di ne euh, xam ngeen ne Salvini wax dëgg yàlla ministère boobu mu nga xam ne moo yore mbirum immigration da ko yëngal yëngal yu métti métti te nag jaxase changé fa changement yu bëree bëri indi fa ay dëgëral yu bëree bëri te xam naa ne du neex a remplacer te xam na mu defoon ko passion nag def ko une chose passionnelle boo xam ne italien yëpp dañoo yëgoon seen bopp ci mbir mi léegi nag pour ñu remplacer ko xam naa bëgguñ jël politicien dañuy wane ne ni lii ci yëfi loi ak doxal ak jàmm lañ bëgg

kooku day sonn parce que lu mu def Matteo Salvini xëpp ci suuf ku jigéen kii nag moom xam comme du politicien te wax dëgg yàlla ministère de l'intérieur mbirum intérieur moo ko gën a xam téeméeri yoon Matteo Salvini ndaxte moom moo mag Salvini man mën na ko mën na ko jur sax parce que mu ngi judd 1953 te Salvini mu ngi judd 1972 fona kon nag di wane rek femme boobu yàgg na ci administration te xam naa ne du ci dugal politique ay dugal ni ñuy gérer administration surtout nag problème immigration bi nga xam ne moom xam na ko bu baax ndax ndaxte liggéey na ci kooku xam naa ne pour mu jokkalanteeg pour mu jàkk janoog Salvini surtout Salvini mooy nekk ci coow xam naa ne xas yu bari dina ko jéem a xas mais kooku nag boroom xam-xam la ci mbirum administration te amul dara loo xam ne Salvini mën na ko cee wax booleeg moom di nekkul euh, politicien gis nañ ne gaa Salvini amoon na fi ministre du travail bu jigéen boo xam ne professeur université la di koy wax Fornero bi mu yeewoo euh, kooku li ko Salvini doon yëkk bëri na waaye yàlla def na bi ko Salvini doon doon xas fekk na mu génn ci euh, gouvernement bi waaye nag kii mu ngi dugg xam naa ne Salvini ñàkkul ne dina am lum rus ci moom surtout ko nag tase nañ ministre de l'intérieur parce que bi fa nekkee ministre ndaw si toujours mu nga woon foofu ca département ba am ay direction yum yum géré waaw lii moo <clears throat> lii moo fi rot tey mbokk yi euh, di wax rek xanaa dañuy del ci ci Salvini boobu moom nag mu ngi continuer di dal euh, waa bi moom daal léegi sax mbirum immigration waxam wàññeeku na ci Ah, day xaar pour xool nu muy nu gouvernement bi di doxee li muy gën a argument yi muy gën a génne fi mu nekk nii mooy ne gouvernement bi Merkel ak Macron ak Bruxelles ñoom ñoo ko formé gouvernement Macron la ak Merkel mu nekk mbir mu doy waar eh, ndaxte nag wax dëgg yàlla Italie fii mu toll nii dem bokk ci Union européenne jéem faa am doole mooy li gën ndaxte comme ni ngeen ko xamee. Euh, euh, italiens yi wax dëgg yàlla ci ñi formé union européenne lañ bokk te su ma yeboo presque mooy troisième puissance bi te président assemblée parlement européen bi sax italien la ba noppi sax ñoom ñu ngi euh, bëgg ci gouvernement bu union européenne bu bees bi ñu ngi laaj Italie yónnee leen ndaw pour ñu nommer ko commissaire fii ak vendredi. di wax na rek euh, moom xam naa ne ay argument lay génne yoo xam ne su ko waxee italien yi nga xam ne seen xam-xam màcciwul lu bëri ci politique dañ koy gëm topp ko moo tax waxam yépp léegi gouvernement Macron ak Merkel lay wax ak Bruxelles muy mbir mu doy waar. waaw lii mooy li nga xam ne moo fi euh, rot mbokk yi ci gouvernement bu bees bi euh, xam naa ne suba la ñuy def juramento Euh, wax dëgg yàlla mu nekkoon nag liggéey boo xam ne ñu ngi ko commencé ak yéen euh, depuis le huit août maanaam depuis bi nga xam ne crise bi départoon na euh, ñu def ci sacrifice nag def ci ay émission biñ koy def wax dëgg yàlla dañ na woon rek nañ tànte xool ndax mbokk yi dinañ leen intéressé waaye wax dëgg yàlla gis nañ ne Euh, ci moment yiñ koy def eh, liy déglu rajo bi dafa yokk bu baax a baax loolu du dara lu dul wane rek ne eh, mbirum <clears throat> dëkk bi ñuy intéressé eh, ñi dëkk euh, lu ci bëri dañ euh, nit ñi dooñu ci intéressé parce que doonuñ leen ko wax ci seen làkk bi ñu xam doonuñ leen ko expliquer wax dëgg yàlla mu nekk gis naa ne daal ni ñu ko jëlee daal di ko wax nit ñi rafetlu nañ ko. parce que ñu ci bëri am na ñu ma oo am na ñu ma yónnee ay message euh, euh, di ko rafetlu loolu li muy wane rek mooy li ñuy wax toujours defaral suñu bopp parce que su fekkee ne ñu ngi nekk ci réew mi euh, te li li fi nekk duñ ko wax li nekk suñu réew rek la ñuy wax te nekkuñ suñu réew ñu ngi bitim réew wax dëgg yàlla mbir mi day xaw a day war gis naa ne sax am na yeneen média comme suñu xarit Diaspora Vision ñu invité woon keroog samedi ñu pour ñu defoon ci émission dëgg yàlla ma rafetlu ko trop def euh, dem ba foofu ba Brescia waxtaan ceeg ñoom élément boobu tamit biñ ko dugalee ci Facebook bi gis naa ne ñu bëri bëri bëri seetaan nañ ko muy fii ci Italie ak ba ci euh, réew loolu donc lu muy wane rek moo di ne euh, jot na ni réew mi ñu dëkk ni mu doxalee ni mu doxee ni muy doxee ak lu fi bees lu fi xew pas seulement politique mais sur le plan social sur le plan économique euh, problème euh, corona crime mafia Madame def expliquer la mafia nan la organiser mi sujet war indi war <clears throat> donc ñu émission Italie wax dëgg yàlla euh, parce que daal lii dañ doon essayer rek ci <laughs> weeri ut beeg léegi waaye gis nañ ne daal suñ mbokk yi rafetlu rafet nañ rafetlu nañ bu baax euh, liggéey bi li rajo defaral suñu bopp nag la ñuy wax dëgg yàlla euh, su lépp wéeroo ci man rek day xaw jafe loolu tax ma leen di laaj ma leen di ñaan yéen ñiy déglu dëgg yàlla te rafetlu waxtaan wi ngeen di fexe rajo bi gën a euh, ci ni ngeen koy euh, euh, mois de juin léegi tey jot chiffres presque et plus de 100 000 écoutes déglu nañ rajo bi li ci ëpp Italie la mais waa Sénégal ñoo ci mais yeneen pays européens muy France muy Angleterre muy Espagne muy eh, Pays-Bas muy Belgique muy Allemagne wax dëgg yàlla ba Malte ñu ngi déglu rajo bi gis nañ ne aussi waa États-Unis aussi am na ñuy déglu rajo bi kon nag lu baax su ngeen ko gisee lenn rek lañ ñaan mooy jéem a fexe ngeen jàpp ci ngeen ciy jàppee ci premièrement moo di ne yëgle ko ca fa ngeen dëkkee parce que man kenn pour mu pour nous xam ko dina ndax man Milan dëkk ko télécharger application aussi commenter di un message di def commentaires parce que ci application am page ne comme ni ngay Facebook rek soo buggee aimer commentaire nga commentaire euh, su da nga message euh, audio

parce que nak euh, am moyen de communication bo xamné lu xew ci réew mi dañ koy tass ñëpp jotandor ko ñëpp yegandor ko ñu bari ñu ngi liggéey amuñu jot di caytu information yi ñu bari li ci bari duñ ko comprendre ñun nak non seulement dinañ sacrifier sun temps parce que su ngeen ko gisee sax émission yi ma mujjee def day goudé parce que damay bayyi ba wacc ci kër gi Euh, defaru jàpp julli ba pare door mën a def na ñëw caytu euh, expliquer leen li xew kon nag dañ leen di ñaan rek ngeen nekk ambassadeur rajo bi mën tas ko ñëpp jot ko ba noppi nag may yëg na yéen a ngi déglu naam gaa dinaa gis le nombre de personnes yi may déglu waaye nag duma xam ñan la su ngeen ko ko yónnee message wala ngeen aimé wala ngeen commenter surtout nag ngeen fexe seen xare yi am rajo bi parce que daf ñuy gën sawaral nga xam information bu ñëw mu mel ci mbirum météo sax dañ ko ci mën a def parce que nag euh, météo ci réew mi lu am importance la euh, avion yi voyager yi yan ñoo am yan ay ban programme la lan mo lan lan mo am problème ci aéroport yi wala yan compagnie ñoo ci am problème lu bëri lu bëri loo xam wax dëgg yàlla mu ngi ci réew mi euh, te ñu koy gis tous les jours mais bañ ko comprendre foo naa ne pour ñu neexal suñ nekkuwaay ci réew mi il faut que yooyu yëpp ñu am ay moyens yoo xam ne lu xew ci suñ communauté wala ci réew mi fu mu mën xewee dañ fay am ay correspondants yoo xam ne dañuy mën intervenir euh, waxtaan ceeg ñun nit ñuy yëg ko parce que information bu leen ci kenn nëbb information euh, mooy euh, décide moi moi pouvoir parce que tout le peu information rek moi le peu doole kon nag nañ leen fexé ci mi ñu bok ci ñu xam nu parce que xam nu mi doxé motax ñu mën a xam ni ñuy yéré suñuy doom xam ni mi di mën tax euh, ñu euh, ñu dem ba suñuy mi waaw Sénégal duñ ko waaye nag lay xew Sénégal foog naa ne ña nekk Sénégal eh, di fa vivre ñoo ñu koy gën a mokkal eh, waxuma ne duñ ci wax waaye nag suñ jëlee suñ temps yépp def ko foofu fàtte fii ñu nekk mooy eh, bokkuñ nekkuñ Sénégal te nekkuñ ci réew mi loolu wax dëgg yàlla foog naa ne du jàmm mbokk yi donc lii mooy dernière émission bi nga xam ne ci vie politique Italie am na beneen réew boo xam ne mu ngay yëngu tamit ci politique muy <laughs> Royaume-Uni Angleterre parce que ñoom it seen problème mooy dañu naroon génn ci union européenne bi waaye daal xam naa ne saf na leen bu baax ndaxte ñu ngay xuloo fi mu nekk nii te ñàkkul soowatul seen gouvernement bi tamit dina daanu ci mbir moomu waaw yooyu yëpp xam naa ne suñu amoon jot dinañ ci mën dellu si faram-fàcce leen kon nag mbokk yi lii lañ leen indiloon di leen wax ne maa ngi xaar seeni commentaire ngeen wax ma seen xalaat eh, su ngeen ma ko yónnee message whatsapp rek dinaa ko déglu tontu leen jërëjëf mbokk yi ñu fanaan jàmm seen xarit Baye Diouf ba beneen yoon jërëjëf.